waaw Balla Gaye numéro 2 Gris Bordeaux vous avez la parole mais mais mais Gris il faut que tu viennes aussi kaa leen ngeen toogaale leen ñaar comme ça après boo leen waxee ba pare on va céder la salle waaw déjà ils sont déjà perdus ñoom xam nañ ne gagné nañ leen. Fira moo la gën a xam s'il vous plaît. gars yi. gars yi ak dégloo. gars yi. gars yi ak dégloo ñu ngi lay nuyu di la ci sa liggéey bu pertinent bi nga xam ne yaa ngi koy ci làmb mais yi bu ñu nee waxante dëgg nag te làmb rek tax ñuy wax te yàlla rek tax ñuy wax vraiment.

déglu leen waay gars yi ak dégloo gars yi ñu dégloo waay s'il vous plaît. asalaamaaleykum monde làmb maa ngi nuyu kenn ku nekk turam ak santam di nuyu aussi tamit suñu papa yi ñuy dajale fii su mel ni Père Bassirou Ba Père Mansour Mbargane ah ak Père Bourkhane ak dinaa juum ba tax na li ñuy dajale fii lépp wax dëgg yàlla ngëneel la. ngëneel la boo xamante ne mooy ci luñ nekk ak coono yi nga xamante ne ñoo koy daj ci làmb muy coono yi metti rawatina ñi nga xamante ne ñun bëri ndaw yi ah man li may gën a am xel bu dal yi nga xamante ne ñooy ménager seen mbër encadre na leen di tëgg ay mbapat ngir lancer seen mbër boo nee nag ngir lancer seen mbër Père Maxime Bargane doy nañu exemple ndax tey en tant que manager bëgg làmb di organiser ay mbapat di jàppale ay mbër ba mbër bi génn kooku bu ne la manager la da nga koy gëm kenn du ko lam-lame suñu père Basirou Babou ñu toog lam-lame père Bourkhane ñoom ñëpp baaxum maa ngi jéego baa père baaxum maa ngi tuub ba tax daal ñii li ñu li ñu lu ñuy jànkoonteel ñun ñëpp ci làmb ñëpp xam ni mooy ci ay coono mbër amul gëdd ci CNG mbër amul gëdd ci làmb ji te buñ nee nag làmb promoteur la ak mbër di nuyu promoteur yëpp ñu fi dajale mais nag coono yi ñu nekkee ñoo ngi ko yàgg xeex depuis suñu jamonoy bàyyi du ko yàgg xeex du ko yàgg suwaar ba yàlla dogal lii ñu dugal madame de ministre ne tànn leen ku leen neex ak ku leen doy mais ñun ñëpp suñu xel ci Malick Ngom la rek ci jikkoom ci comportement am ci rafetal ci mbër bu amee problème ci biir géew sax da ko gis ni muy calmé gars yi ak di dalal gars yi kon donc bu ñu nee kii jar naa fal jar naa fal di gërëm aussi tamit Gris Bordeaux bi nga xamante ne mooy président bi nga xamante ne mooy lutteur en activité gis nañ coono yu ciy daj ba jamonoy Alioune Sarr ba mu fi nekkee bokk na ci ñi nga xamante ne dañoo apporter combat bi mu génn kaas wax li nga xamante ne ay coono ñuy daj bii paase rek gis ngeen man li ma ci wax parce que ragalu ko tiitu ci mais bu ma ci tegee sax ay daan. jaral na ma ko ngiir ñi nga xamante ne ñoo topp suñu ginnaaw parce que yàlla moo fi nekk buñ demee nag nit ci nit ci li nga nekk gisoo ci sa bopp ñu la ci maltraité loo def ñu dagg la boo tëbee ñu dagg la sondel ñu dagg la furnu ñu dagg la seetu ñu dagg ñun fa lañ loolu ñuy dagg budget bu takk boo xamante ne dañ koy jël ci ay mbër mais mbër bu préparé combat rek dugg fu mu war a dugg ànd ak ay mbokkam lan lay desee en même temps ngay gis promoteur boo xamante ne ay yenn promoteurs yi di dagg di jël ay billets di ko jox mbër mi loolu CNG yokk mu seekaas koo xamante ne dafa war a entraîner di préparer combat am naan day ñëw di jaay bii billets yi di ñëw biir CNG CNG di ko xam dëgg ci tànkam nga ànd ak nekk lobby kon gars yi dama ne waxtu mu mënut a bëri ndax guddi na waaye ñun ñëpp maa ngi doon ñu àndal tey ak suba ak gannaaw suba kon donc maa di remercier sant di leen gërëm mbëri fi maa ngi leen di sant bi nga xamante ne combat bi apporté nañ ko jàpp ngir jéem a ñu bëgg yàlla suñu borom jàppale di gërëm aussi tamit promoteur yi nga xamante ne ñoom ko jël di ko teg nuyu bi ci loxo bàyyi ah euh, l'an 2000 maa ngi leen nuyu ak sa ñaawal <laughs> jërëjëf. mooy président oui mooy président da nga rek. waaw أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله foog ma muslu allo. gars yi écouté waaye gars yi. foog ma muslu parce que dama yeewu suba teel sama ñaari xarit yi. Eh? moo tax il faut ma muslu ñun. di ziar ñëpp. nga xam xéwal la. di am mbégte teew fii. di sant ñëpp. sant association yi fi teew yëpp ñu ngi ci ñu ngi ci jiital suñu pàpp suñu xarit Père Bassirou Ba di ko ñàkk ci ah. su ko neexoon na moom ay mbirum wéy na du fi teew du fi du fi romb mais góor gi ñu ngi lay ziar yaa sa yaa sa doom Pape Ndiaye Seras nuyu. le le ménager pertinent baaxul yow yow waxuma la 10 pour cent sax yow 20 pour cent sax mérite ko parce que damay wax ni boo déggee muy wax ci ay at ci ay mbërëm da nga naan kii mérite la sax 25 pour cent parce que gis li ngay lekk di ko jël di ko jëmee sa njaboot di ko def sa biir da ngay ñaan yàlla bu leer parce que loolu di lekk wala ngeen di seen njaboot parce que Cheikh Oumy Diallo lew parce que war ngeen ko tey parce que damay wax ni ñaar ñu ngi koy reproché te ñàkk organisation la rek parfois nga dégg entraîneur bu ne xas mbëri te yàlla ñu ma tim xam ne làmb bu amoon organisation waxuma la entrepreneur boobu mën a ménager mën naa la waxal ci alxuraan kenn ñëpp ci gis seen que làmb ko war a assainir ko war a assainir parce que lépp la boo xam ne ñëpp ci war a seen bopp même la presse a gis seen bopp ci làmb journée waaye insha allahu rabbi bu nekkee yàlla ni mu may nangu loolu yëpp dana jëf te ñu koy gis ñun nag dañ dëkk naan Sénégal ci xew-xew daay nañ may doon wax du naan Sénégal jëm ci ay vote te en ñun dañu am culture gis nga mbir wuyu mel nii ku ci nekk am nga ci sa plein droit parce que nag Sénégal ñu ñoo ko c'est pas la fin bi moom làmb nous sommes une famille démocratie lépp la am lu noonu lii dafay jeex ci ñaari minute boo romboon ci mbedd mi sax gis ñaari ginaar yuy xeex te xamoo leen sax billaay bi nga bëgg kenn gañ ku ne am nga sa droit choisir ku la neex mais nañ ko def ci transparence nañ ko def ci discipline nañ ko def ci yar ak tey parce que sport luy boole la waru nekk luy taxale ñun nag engagement yi ñu jël dañ ko teg en toute sincérité ci fulla ak fayda balaa may sori rek ma nuyu sama balaa xel dafa gaaw a fot wax dëgg yàlla suma association bu ñaaw bi nga xam ne sama gars yi féete ma gauche féete ma droite euh, wax dëgg yàlla bi ma bàyyi à midi une heure la ma woo fekk may entraîné mu wax ma invitation bi yooyu bàyyi ñu la ziar di am mbégte di am contentement ci initiative bi lii ñun ñii ñëpp ku nekk mën nga ko waaye nag ñu ngi lay gërëm di la sant parce que yaa ngi wane ni sa wax bariwul nag waaye làmb ah saf na ci sax bu nekkul woon yow ren làmb du naka jam loo mën ren yàlla nga ko mën déwén te xam nañ yéene bi nga am ci suñu rakk yi parce que saa yu ñu waxtaan man ak yow dama naan la espoir u yi. mu am li gën a garaaw mooy le corps arbitral bi nga xamante ne nii dafa affilié woon biir CNG te CNG jël corps boobu diviser leen pour mieux régner parce que tey nii lépp boo ko gisee ñëpp dañu bëgg le départ du CNG mais CNG. li taxoon mu réussir mission at yi yëpp ñu génn dafa diviser ñëpp pour mieux régner Abdou Bakhoum a ngi nii toog di ménager Ama Baldé di un très très grand ménager euh, Maxime Bargane ngi nii toog di ménager Siteu nga xam ne au mois de novembre la war a bëree combat royal donc fii euh, ménager yëpp ñu ngi nii tey jii taxaw donc euh, bu ñu waxantee dëgg aussi. arrivé de Bada Dione bu Bawol nga xam ne école de lutte la jiite di un gars influent di un responsable boo xamante ne nii ñëpp ràññee nañ ko ci li nga xamante ne nii mooy milieu bi mais corps arbitral bi ma doon waxtaane léegi mbokk yi mooy CNG dañu ànd ak ñoom pendant des années di leen noot ba diviser leen tey moo tax bi ministre bi ootee làmb yëngutu pour ne nañu tànn ki ñu war a jiite ñoom ñu doon ay gor doon ay jàmbaar am fit am courage taxaw wane seen position wane na ñoom vraiment ñu ngi ci biir liggéey bi di ci liggéey mais amuñu ci lu leen neex kon donc tey fi ñu taxaw mooy ñu ngi ànd ak les